94 Walf Sénégal dellu si di leen char di char mboolem ki topp fal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi xam te leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen char nañ leen way leen di topp fal 94 Walf Sénégal Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye de eh, liñ naan ko muñ mooñ lu naqari lu nekk rek lu neex a ciy topp wow ma dara waaye ñaan yi nga xam ne nii ñaan la ko doon ñaanal rek a ah, yaakaar naa loolu moom boo ci jotee moom daanaka ma naan lu neex dong ngay daati am te senegal moom li may wax rek ñoo bokk nday bokk bàyyi xàccandoo di dóorandoo lañ war di def mais fii ñu toll moom wax dëgg fa yàlla a borom ab xam-xam di jariñum réewam kenn waru koo tëj koo xam ne ni chaque jour bu yàlla sàkk mi ngi liggéey ci am xelam. te daanaka mën naa ñu topp ci ginnaawam kooku moom bala ñu koo tëj dañoo war a xool dëgg dëgg dëgg dëgg la nekk ci ginnaawam voilà nattu nag munta jaas kenn natt moom suñu borom bu loo ko tegee kenn mënu ca dara ndax ñu baax ñi ñu gën fuuf te gis nga leen natt bu nekk jaar nañ ci waaye dañ koo muñ waaye ba ñu ko muñee gis nga suñu borom lam leen indil ci ay neex-neex ba abadan du fay du ma sa deñ ba benn yoon kon yaakaar naa ni eh, ñu mel nii war nañ leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax xam nga euh, dañoo toll ci monde boo xam ne nii wala dañoo egsi ci jamono boo xam ne nii dafay bari ñoo xam ne nii fañ leen doon séenu wala fañ leen doon gis mbir mi nekkul foofu ndax dangay gis koo xam ni tey day jàng ba yee ay këyitam mais moom moom moom mbaam mu dofayam wala mbaam mu safi ay téere jàngam ba jëriñu ko dara dara dara nga gis koo xam ne njàngam soriwul soriwul maanaam toogul ci ban école yi maanaam boo gësoo gëstoo ba gëstu daanaka mën naa am njàngam demul fenn waaye tey soo ko dénkoon am réew mu teel la ko ndax xam-xamam ak expérience am kon yaakaar naa ni eh, ñu mel ni ak ñu mel ni moom na nañuy bàyyi xel bu baax a baax xam ni ci réew mi lañ bokk xam ni kat dañuy jariñ société bi mais duñu lor mukk société bi loolu lu mat bàyyi xel na te wax dëgg yàlla nag jàpp naa ni mooy la ma daan wax rek Sénégal bari na ay boromi xam-xam yoo xam ñu ngi ci biir réew mi di defar guddi ak bëccëg mais dafay am ñoo xam ne nii loolu ñuy defar duñ ko xam parce que jamono bi ñu nekk dafa naqaree dégg naqaree xam yaakaar naa ne boo amul dëgg dëgg dëgg xel ñu noonu doo leen mën a dégg parce que yow saa suñu waxee da nga koy gisee na leen te amaana demewul noonu xëy na defar la ndax jamono fa toll kan lan moo des ñu bokk ndey bokk baay di xaaj coono dóorandoo comme li ma koy wax ne Cheikh Bara Ndiaye nag bokk na ci nga ci ñi nga xam ne ni gars yi dañ leen di bàyyi xel tey jii bi mu nekkee fee nga xam fa la ne woon ak moroom dañ leen doon ñaanal te ñi leen doon ñaanal kenn xamul nu mu toll du moom rek ndax am na ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne ni nit ñaa ngi leen di continuer di leen ñaanal parce que moom li may wax rek. chaque jour àdduna am misaal la da ngay gis yoo xam ne ni daanaka mën na suñu borom da koy wane wane